relation yooyu ni ma ko gisee mooy damay en fait je voudrais juste adresser un message peut-être à monsieur Karim Wade. Mm-hmm. ne ko il faut pas accepter que Macky Sall piège trois fois. Mmh. y a eu deux fois. Ah, non, et D'abord, euh, le président Macky Sall, après être arrivé au pouvoir, yaakaar naa Karim Wade c'était sa première cible. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, mu fexe ba diviser monsieur Karim Wade avec l'opposition, ñu créer, c'est-à-dire ils ont créé un flou. bu def na opposition bi dafa xaw a divisé wu. léegi ñu dem jusqu'à deux jours euh, euh, ñu dem ba euh, conseil constitutionnel rendre décision ba pare mu ne Karim Wade candidat la les Français attendent ce jour la pour publier un décret ñu ne Karim Wade plus dans la n'est plus Karim Wade voilà n'est plus citoyen français mm-hmm. français yi ñoo la gën a xam ne loolu bu ñu ko publier le lendemain la candidature de Karim Wade sera invalidée parce que mm. ñoom nu ñu amee ay juristes ñun noonu la ñu amee juristes donc avec la complicité de la France ñu ngi donc contrairement voilà, à ce qu'on voilà. dit que ne Thierno Assane moo nekk à l'origine de de mais, de ça c'est le pouvoir ñoom ngay appliquer yow xam nga moi je suis dans l'opposition et je voudrais que l'opposition soit unie mais c'est légal c'est la constitution qui dit que boo amee ñaari nationalité munoo nekk candidat xam nga moi je ne condamne pas Thierno Assane sur ça xam nga loolu xam nga man euh, fa nga koy xoolee mooy la complicité xam nga euh, le euh, le premier ministre Amadou c'est le candidat de la France loolu tout le monde le sait. Ah à deux mois des élections non mais attendez à deux mois des élections monsieur Amadou Ba part en France il part signer ratifier des choses comme s'il était déjà président. il bat des mais des engagements muy dem parce que amul munoo nekk premier ministre benn nguur boo xam ne dans deux mois lay jeex mhm. parce que tu es juste candidat nga dem foofu noonu tu es reçu avec les honneurs nga dem di signer ay contrat donc ça veut tout dire et deux mois après la candidature de monsieur Karim est annulée avec la complicité des Français qui attendent que la liste soit publiée pour jouer sur le droit génne parce que xam